dalen leen ak jàmm mbokki internet yi safo di setan bus MTV Senegal, di len jaajëfal ci top bi ngeen di top sen bi mo ngi nonu mom general Moussa Fall gannaaw banoko limosé ay révélation yu ama am solo jëm ci jëm ji ak question bu ama am solo lan mom general Moussa Fall li tax ñu limosé ko sénégalais yi contane surtout ñi andak Pastef ànd ak gouvernement bu bees bi ànd ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd ak mbégte ak xol yu sedd guy ginnaaw bi ñu ko dàqee lu ko waral mooy dafa am ay événement yu fi amoon événement yooyu ay jàmmaarloo amoon si waaye moom mii di général Moussa Fall ñu ne moom moo doon jëflanteeg sénégalais yi ba ay doomu aadama daal di si ñàkk seen bakkan kon bu yàlla dogalee ñu daal di koy folli fa mu nekkoon kon dañu si kontaan loolu si lañ leen di ñëwal ak ay révélation yu ama am solo jëm si général bi nga xam ne moo ko daal di wutu ndax li fi amoon dina fi amaat ñaanuñu ko yàlla waaye bu fi amee est-ce que moom mi général Moussa Fall taxawaay bi mu amoon général bi nga xam ne moo ko wutu noonu lay taxawee am déet. ba léegi dama gis sa mbokk waa Pastef ñuy diaboliser général Moussa Fall nee nañu dafa xeex ak ñoom. nee nañ da leen a gaañ nee nañu de moom moo leen tëj ñu koy diaboliser kontaan ci wàcce bi ñu ko wàccee kon ñoom daal li ñu bëggoon mooy bi ñu manifester dañoo bëggoon général Moussa Fall moom ak ay troubam ñu toog seetaan ñu manifester toj yàq waaye léegi man question bi may laaj mooy même sénégalais yooyu bu ñu génnaantee suba di manifester di lakk di toj di taal est-ce que euh, ki ngeen remplacer teg ko ci place su général Moussa Fall est-ce que di ngeen ko ordonner mu génn. Euh, arrêté manifestation yooyu jàpp nit ñi arrêté leen tëj leen est-ce que di ngeen def noonu wala du ngeen def noonu loolu rek laay laaj voilà parce que ñi ñu tëjoon ñi ngi mer lu nekk ñu di ko wax mais même sos même même même situation yi bu bu fekkente ne dafa dafa retourné waat amaat ci réew mi est-ce que yéen di ngeen wax général Martin Faye mu génn ay troupam pour ñu arrêter manifestation yi wala du ngeen ko def di ko def wala de loolu laay laaj. man de wax kontaan ci laa bokk ndax général Moussa Fall la maa dañ ko war a dégrader quoi yemale ko maa nañ ko war a dégrader ba mel ni koo xam te day soog a dugg ci gendarmerie yi nga simple gendarme yi gis nga grade bi ñi am noonu loolu noonu ñi taf lu tuuti loolu ñi taf seen mbum mi général Moussa Fall dañ ko war summi wàcce ko fa ba daraja jooju noonu xam nga kuy manifester kenn waru koo rey parce que bakkan moo gën a foor ay matériel yu ñuy yàq yooyu noonu euh, France manifestation yi fa mujjee Macron lan la waxoon chef de police yi ñu yor walum police amadi ne me fait pas de mort wa est-ce que français dañ ñoo gën ñun wa Sénégal non man jàpp ma peut-être amna ñu japp lool wa lool la quoi te man gëm na ni inshallah allah carte yalla euh loolu dana fi gëj inshallah allah non non non non dana fi gëj quoi mëna dem sax ba siècle bi sax mëna ci bañam te yalla bu mamati barke Seydina Mohamed ñun loolu la ñuy ñaan yàlla quoi Moussa Fall kay sëñ bi wàcce bi ñu ko wàcce man dama cee kontaan dañ ko war a dégrader sax kuy manifester sëñ bi mën nga koo jàpp yóbbu ko mandat de dépôt mais pas rey rey rey Moussa duma ci d'accord moom. Eh. Eh, non xam nga manifestation yi fi amoon amagul benn enquête bu génn buy wax ni kii moo rey wala kaa kon arrêté leen di accuser ay nit. naan kii moo rey wala kaa man de duma ma accuser ne kii moo rey wala kaa tant que gisuma ay enquêtes yu génn yu wane ne diw moo rey wala diw moo reyul d'accord beneen bi ci des man daal li may laaj mooy yéen ñi yore nguur gi léegi di jubilé c'est parce que wàcce nañ général Moussa Fall parce que da ngeen doon xeex ak moom ngeen am défaite ci moom d'accord léegi demee demee ci seen nguur même sénégalais bu ñu génnaatee ñëw ne dañ leen duma. est-ce que ku bes ki ngeen tek fi muy général Martin Faye est-ce que di ngeen ko jox ordre pour mu génn jàkkaarloog ñooñu wala det est-ce que di ngeen ko jox ordre pour mu génn ak ay troubam xex ak sénégalais yi wala da ngeen bàyyi sénégalais yi manifester sen manifester toj li ñuy toj yaq li ñuy laaj yaq fekk leen palé wala det parce que yeen kat da ngeen doon wax suba palé lañu jëm suba palé lañu jëm te même sénégalais suba ne palé lañu jëm wa lolu bis bu amé lolu question de bu may laaj képp ku contane ci wacce gi ñu wacce général Moussa Fall képp ku nga xam danga ngaa meroon ci bi ngay bëgg di lakk di toj di manifester bëgg a yegg palais euh, euh, policier ak gendarmerie ne du fi amee léegi yéen tey yéen ñi yore nguur gi li may laaj mooy suba parce que loolu xëy du xëy na du yàgg dara de même sénégalais yi mun nañoo man ñaanuma ko yàlla mais mun nañoo gën di manifester mais est-ce que su boobaa général Martin Faye ak ak ak ñi ngeen fi changé ñu indi fi indi leen fi est-ce que su boobaa di ngeen leen wax ne leen ñu wàcce ay troupes. ñu jàkkaarloog manifestance manifestant yi wala déet dama bëgg ngeen may jàmm faute de sécurité de défense ñii seen liggéey la nekk république la ñuy défendre voilà général Moussa Fall ci liggéeyam la nekkoon comme ku bees kii bu ñëwee képp ku fi yëngal da teg ci yoon arrêté leen te yëpp politiciens yi ñoo koy def ñooy créer seen i mbir créer seen i coow ba pare bëgg bàyyi bëgg ni ñu bàyyi la ñu def leen neex. kon yow yaa ngi xalaat ni li fi xewoon dana xewaat quoi loolu yow ngi koy xalaat quoi. te nga koo bañ a ñaan yow sénégalais jamono yi dañoo féex de maanaam li fi xewoon loolu benn nit moo ko waraloon te muy Macky Sall waaw te muy Macky Sall te Macky yàlla daa dogal noonu ko yàlla bindee quoi benn la gis nga ni turam bi raare turam gis nga noonu mu raare noonu la jukkoom noonu la jukkoom raare quoi ba tax na moom ci jukkoom ci la provoqué sénégalais yi ba loolu noonu xew fi kon donc mën nañoo rafet njort kon loolu noonu. du gaaw a amaat quoi wala du doon ci siècle yi ñu nekk nii xëy na beneen siècle keneen ku mel ni Macky Sall ñu waat fi fii ak téeméeri at peut-être su boobaa daan ko gis Macky Sall ni mu mel moom rek a ko mel te day ñaan yàlla yàlla musal suñu président bi bees bii fi nekk ni yàlla musal ko ci ci ci loolu quoi man ma loolu rek laa ñaan quoi yàlla na yàlla musal ci loolu beneen bistop mooy li ma la wax léegi rek nee naa ku génn di manifester kenn waru koo rey même ba si jamono jii ñu nekk nii képp ku génnoon di manifester suba kenn du la rey. bërki dee mu gisoo clando taximan yi clando yi di di manifester loolu bërki dee mu gisoo ko ah marchand ambulant yi keroog doon nañ toj ak taal di def lépp mais mandat di garde à vue sax amuñu ko defuñu fa day jàppuñu kenn naan ba dañ koy garde à vue te bu doon jamono Macky ba léegi ñu ngi ñu ngi wax ay moor quoi kon loolu day confirmer ne que yàlla danañu sutural suñ borom yi dara tëw danañu sutural quoi waaw. yenn analyse yi <laughs> <laughs> yàlla nañ yàlla musalaat ci am njiit gu mel noonu yàlla nañ yàlla musalaat ci njiit gu mel noonu beneen bi nga ne dañoo am defet ci kaw Moussa Fall nun ko amee na lañ amee defet ci biir ci kaw Moussa Fall xanaa kon moom moo njëkk am defet ndax am nay jamono yoo xamante ni mën naa ni Pastef jekk woon na nguur gi torop waaw ah, bi mun Muntaxa ñaanee ñu bàyyi maanaam yéen da ngeen a dem ba gis ni ay coow ngi am ci dëkk bi eh, te waa Pastef léegi eh, yëngootu gis nga li nga xamante ni moom moo amoon ci li Macky Sall doon def képp ku yeewoo senegal xam ne injustice am na yàlla bu mu amati Sénégal waaye bés bu ñu delluwaatee ci loolu sénégalais génnaat ci réew mi waaw léegi nag ñoom ñooy xam ni ñuy tëjee seen bopp jinax waaye moo tax ñuy ñaan yàlla injustice bu amoon moom ba doon génn xale yi ba bu Ousmane Sonko koy waxee ñëpp gëm li mu wax génne da li ñuy wax dañ koy gis ba pare soo ko tax soo mooy tax ñu génn kenn génnul woon ci li nga xamante ne dañu doon xool Ousmane Sonko ci lu ko neex la la doon xale bu génnoon ci réew mi di am lu la métti rek gis naa ni li la génne woon mooy da gis ni lii moom li muy wax ni moom mooy exister moom moo xew ci réew voilà te naan ñu yàlla amaat lu mel noonu bu fa demee nag ñoom bu ñoom ñii di wax nii bu ñu demee ba teg foofu seen tànk bu boobaa ñu jàkkaarloog ñoom rek waaw bu boobaa ñun ñu jàkkaarloo waaye ñu ko yàlla te yàlla bu mu am ma faxa sama nopp jàmmeñ yàlla bu mu am waaw